gis gi naax nekkul lu yomb ci marché bi rax ci dolli njëg li tar ba jaaxal jaaykat yi niki Saliou Ndiaye. ginaar dina am moom mais du yomb de. ah mën ngaa jëndee kees 32000 jënde aliment 17700 di ko jaayee 3000 mënta ne. mënta ne ku yebul sóoraale 4000 4500 ba 5000. aliment gu cher cu jafe am loole bokk na lu jaaykat yi di daj ba tax na. ci njàkkare la ñu nekkee Malick bokk ci ñoom. nam daan demee demeetu ni parce que aliment bi moo seer. 14000 la woon jar mais li 17700 lay jar léegi. poussin itam amul. éleveurs yi ndaw yëpp daw nañ yu mag yee fi des. ginaar goo jënd léegi def transport ñëw daanaka mooy ba ñu ngir client yi rek mais demeetul noonu daal. mu nekk ay kàddu yuy firndeel dëgg ginaax dina jafe lool ndax lu ci làmboo moo bari Ousmane di ko leeral. bu fekkee ne prix dafa yokk yow nga sóor ne mën ngaa yar génn te fekk te quantité ba ngay jël du la doy te mënul satisfaire nit ñi am na si ñoo xamante ne dañ daan def quantité bu bëri mais léegi xam nga dëkk bi rek xaalis moom amatul noonu ñu bëri dañoo wàññi seen loxo. ay fan yu néew moo des ngir ñu amal julli korité waaye fu mu toll nii ginnaaw dafa cher ak jafe gis ci marché bi. à l'heure où la korité se pointe à l'horizon les marchés sont mal approvisionnés en poulet Saliou Ndiaye un vendeur assure que le prix du carton de poussin de celui des éléments ont connu une flambée. Ça ne sera pas facile d'avoir des poulets parce que le prix de la caisse et des aliments sont très chers. Malik, un autre vendeur, il se plaint aussi d'achat initial. Aujourd'hui, le sac d'aliments coûte entre 17 500 francs au lieu de 14 500 francs. Je pense que ça ne sera pas facile pour les Sénégalais car les poulets seront chers. Ce qui fait que certains éleveurs ont abandonné ce métier, selon Ousmane. Beaucoup d'éleveurs ont fini par abandonner ce métier à cause de la chèreté car ils ne s'en sortent pas l'argent est presque improbable. léegi xam nga dëkk bi rek xaalis moom amatul le poulet est presque introuvable dans le marché et ses vendeurs annoncent déjà des prix qui ne vont pas certainement faire l'affaire des Sénégalais.